alors euh, comme ni ma leen ko annoncé tout à l'heure euh, Ndiacké mi ngi war a dalal ki dee di Alioune Badara Diouf euh, di le euh, di membre du comité national d'organisation de la journée mondiale du théâtre moom nag i vient de nous rejoindre sur le plateau dinañu sekk waxtaan ak moom laataa ñoo dem ci suñu invité bi lee di Malick Gueye donc comme Alioune Badara Diouf vient de nous rejoindre dañuy daal di koy dalal rek bàyyi ko mu nuyoog téléspectateurs yi ñu ngi lay ziar. asalaamaaleykum waa Walfadjri suma papa yi ma fekk ak suma xarit yi. Mm-hmm. maa ngi nuyu téléspectateurs yi tamit di kontaan trop ci invitation bi. Mm-hmm. voilà donc euh, Walfadjri moom man suma télé la. Mm-hmm. dama ci scotché wu. yàlla moo def loolu. donc di ñaan yàlla rek li nga xam ne moo tax ñu ñëw fi tey muy journée mondiale bi. liñ ci bëgg yëpp ñu am ko. amiin yaa rabbi alors Ndiaké ñu bàyyi leen ngeen jàkkaarloo. waaw sama tey nag dañu dalal kii di Alioune Badara Diouf. Mhm. parce que euh, lii di journée mondiale du théâtre euh, xam naa ne semaine bii di ñëw ci le 27 mars incha allah si lañ ko nar amal ñoom nag euh, ñu taxawal si ab comité di ko waajal moo tax tey ñu dalal ko. Mhm. moom nag ab théâtre kat la ab metteur en scène la nekk tamit kii di chargé de communication di boobule comité. Mhm. moo tax tey ñu fas yéene waxtaanee lii di. théâtre euh, sénégalais xam naa dañuy ñëw rek xuus ci waxtaan bi. Mhm. Euh, monsieur Diouf ginnaaw bañ la nuyoo dañ lay laaj yow jamono ji naka nga gisee lii di théâtre sénégalais. waaw théâtre bi euh, li ma ko gisee actuellement ñu ngi ci ñu ngi ci def comme ni ko daan defe dëgg la am na ay jafe-jafe en fait yoo xam ne tey par exemple parce que théâtre bi actuellement. téléfilm yi maanaam plateau yi dafa nangu lu bëri ci ci ci ci théâtre bi mais terewul ñun en tant que metteur en scène en tant que comédien ñu ngi liggéey ci formation yi pour forme les jeunes di créer spectacle yu yu xam ne nit ñi tamit ñu ngi déplacé wu di ñëw surtout au niveau de Blaise la ne dernière def nañu plus de vingt quatre spectacle foofu chaque chaque mercredi ak vendredi dafa am spectacle yu ñëw public bi mu ngi commencé waat di retrouver wu si si seen bopp di gisaat seen bopp ci ci ci théâtre bi comme ni ñu ko daan defee ci at yi weesu donc malgré tout Sorano tamit comme dab ñu ngi def ay création di def ay tournée bon ñun itam de notre côté ñu ngi def ay création au niveau de Douta Seck ak ci région yi di def ay spectacle di def ay formation tout récemment ñu ngi jóge ci euh, Fesnac bi ko wax Fesnac dëgg la mais da ngay wax théâtre en région yëpp daje ñu toog def Euh, compétition voilà ñuy gagné gagné après la vie continue. wax nga ko en tant que acteur euh, ak euh, metteur en scène est-ce que jàpp nga ne faire du théâtre dafa nécessité am formation. bien sûr parce que le théâtre théâtre métier la te métier booy mun a pratiquer ak métier bu mën a doon dafa laaj nga xam nga am formation ci métier boobu parce que théâtre dañ koy jàng. soo demee à l'école nationale des des des des arts. Euh, quatre ans ngay def pour def formation théâtre euh, dans les dans les temps yi wees woon da ngay am bac bac ba pare nga soog a ñëw def concours bi soog a mën a dem école nationale des arts mais à un moment dafa soxe woon parce que euh, ñu bëri suñu amee baccalauréat dañuy dem defi leneen duñ ñëw def théâtre après ñu kii ko yóbbu ko BFM ñu am boo amee BFM nga def Euh, concours bi soo admis après nga dem école nga def formation 4 ans après génn def sa liggéey donc am ñoo xam ne amuñu chance peut-être dem école mais dans les arcos dans les compagnies ñu ngi def ay formation ay atelier de théâtre parce que théâtre dafa am ay technique yoo war a jàng xam la scène maîtriser la scène xam les techniques d'interprétation d'accord et loolu ak euh, la composition du personnage parce que personnage bi ñu lay jox da nga koy composer mu nekk sa yaram nga intérioriser ko soo ko mën a extérioriser donc loolu soo amul formation bi amoo technique bi doo ko mën def. donc moo tax la formation important kii lan mooy technique yooyu noonu. bon en fait tey xam nga ñu bëri dañuy wax théâtre pensée parole plastique parce que euh, li ngay texte bi ngay bon texte bi ñu lay jox maanaam dramaturgie bi bu bindee texam dafay son premier collaborateur mooy le metteur en scène. metteur en scène bi moom lay ñëw liggéey ak moom ci texte bi mu comprendre parce que l'écriture de de de de de la dramaturgie kooku forme artistique la mais suñu defee ba pare dañuy jox metteur en scène bi moom lu tam mu apporter moom son art la la mise en scène c'est bon bu defee euh, sélection am euh, distribuer artistes yooyu ñuy ñuy jox suñu xamul nan la ñuy composer personnage bi nga xamante ni moom la ñu war a interpréter ci kaw scène bi mais loolu dafay dafay dafay dafay am problème d'accord donc pour faciliter le travail au metteur en scène donc artiste bi dafa war a pare am une formation parce que la le metteur en scène amul temps di former nit ki ci création bi donc pour euh, comédien bi moo war a pare am une bonne formation de ce fait que su ñëwee ci kaw scène bi dina xam les les les différentes parties de la scène parce que seen dafa am lu ko composé yooyu ko composé boo ko maîtriser wul comprendre ko da ngay sonal sa bopp sonal metteur en scène bi interprétation bi du jaar yoon su ko defee création bi day am problème day am échec mhm. parce que le théâtre c'est le reflet de la société effectivement convention la booy am yow mi jouer ak ki nga xamante ni moom moo lay seetaan d'accord loolu soo ko comprendre xamuloo ko mais mënuloo ko mënuloo ko def est-ce jàppoon ne jamono ji dañuy privilégier wo dañuy privilégier apparence euh, au détriment du bon euh, j'avais un, un, un professeur qui disait qui me bon yàlla na ko yàlla yërëm maa ngi koy maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla yërëm ko Makadou Mbengue ñu bari xam nañ ko parce que daan na ñëw jàpp émission bi fii bi tey daan def talent dafa doon doon wax ne euh, don plus technique égale talent don yàlla moo koy def si nit boo amee don ba pare da ngay dem def jàngi technique pour mën a wane sa bopp wane sa talent d'accord am nañu yàlla may ah, ñoo xamante ni loolu may suñu borom la kooku kenn du ko kenn du ko nii parce que am na sa existe ci domaine yëpp. Mm. mais soo def su la yàlla defee loolu da ngay def nga jàngi maintenant maintenant dañu nekk ci jamono boo xam ne actuellement ku am talent rek da ngay au nga dem defi formation ba ngay ñëw taxaw est-ce nga bëgg wane sa bopp wane bëgg wane ne te te théâtre du loolu théâtre Euh, dafa nekk loo xamante ni du ku mu neex nga def ko d'accord moo tax man je privilège la formation. Mhm. d'accord mais jamono ji seetlu nañ ne euh, théâtre yi ngay gis wala téléfilm yi ngay gis yu bëri dañuy privilégier talent dañuy privilégier nit ki dañuy jël benn xale bu jigéen bu rafet ñu jël ko def ko kii bi peut-être ñu ngi bàyyi joué katu théâtre yi nga xam ne comme li nga wax ñoom def nañ ci formation ñu bàyyi leen ci ginnaaw. waaw loolu am na c'est que moom la ñuy wax yu bëri dañuy wax parce que dafa am différence bu mag bu am ci entre théâtre ak cinéma wala les séries les séries télévisées ak le cinéma dafa nekk loo xam ne ku nekk mën nga ko def même soo amul formation mën nga ko def parce que loolu foofu ay acteur la ñuy soxla acteur bi su euh, euh, bi bu ñu koy bind dañ koy bind ci benn euh, comment dirais-je dañ koy bind ci benn euh, benn profil bu nga xam ne profil boobu la ñuy dem seeti d'accord comme mun na nekk jaaykatu gerte caaf mun na nekk mécanicien mun na nekk professeur bi mun na nekk étudiant bi mun na nekk ku nekk mun na nekk mannequin bi mun na nekk ñëpp loolu mu yëpp mën na ko def parce que loolu c'est sur le plateau comme sa émission su bon su nekkul en direct dañuy couper su baaxul su baaxee on laisse continuer mais c'est le théâtre mënoo ko def te amoo formation c'est impossible c'est parce que c'est en live c'est en direct amul coupé amul collé amul amul dara tu maîtrises les textes tu maîtrises la scène d'accord après nga ñëw def répétition bi pendant pendant trois ou quatre mois après nga def spectacle mu dem donc foofu mënul mënul mënul mënul mënuñu ci faux mënuñu ci mënuñu ci dugal lu ci bokkul en fait formation lay laaj qualification lay laaj est-ce nga mun a ñëw taxaw si seen bi mais le téléfilms les séries et tout loolu ñëpp mën nañu ko def kooku moom dañ koy nangul pour ñëpp parce que même dans ci yeneen réew yi soo demee da gis ay athlètes wala ñu nga gis ay boxeurs wala ñu gis ay ñeneen ñoo xam ne ñu dem jugé ay film d'accord te dañ koy réussir parce que foofu dañ lay jox sa temps jox la sa scénario nga jàng ko est-ce nga profil bi doo ko dem seet yi profil bi mooy nekk yow personnage bi yow la. comprendre nga. Mm-hmm. mais le théâtre man par exemple en tant que acteur en tant que comédien quand de Lat Dior est-ce que comprendre nga quel que soit man suma kii damay dem dugg ci peau Lat Dior bi est-ce que comprendre nga euh, créer personnage Lat Dior est-ce que comprendre pour mën a jouer Lat Dior ba kii seetaan yaakaar ne Lat Dior moom moo taxaw même su fekkee ne xam na ne moom du Lat Dior moo nekk donc loolu formation lay demander. kon ñenn ñiy wax ne téléfilm yi mën na concurrencer est-ce que yow partagé nga. non loolu non non non non bokkul bokkul franchement téléfilm aar la bu boo xam ne nii man dama koy def tout récemment j'ai joué je suis comédien je sur la scène mais en même temps je sur les plateaux parce que suma film bi ma mujj a def le mouton de Sada donc man maa interprété rôle principal bi d'accord film bi def na ay festival yu bëri et tout ça qui n'a rien ak su ma waree dem si plateau bi ak su ma waree def sama mise en scène et tout ça donc ku nekk mën nga bàyyi sa waar quoi ku nekk mën nga dox sa dox te du laalante du ko du ñu ay concurrent très sincèrement. alors Diack Ba je voulais revenir un peu sur la journée internationale ou la journée mondiale euh, du théâtre euh, année yi ñu passé surtout 2022 juste après Covid bi ak crise yi nga xamante ni am nañ ko thèmes yi da doon tourner autour de la paix euh, théâtre vecteur de la paix cette année euh, ku ju mel ne institut international du théâtre thème bi ñu jël mooy un théâtre pour un temps d'urgence mm. euh, en tant qu'acteur de ce milieu là thème boobu lan la lay inspiré Euh, effectivement dañuy damay dellu siwaat rek ci historique journée bi parce que loolu dafay am solo ñu koy fàttali parce que institut international du théâtre moom moo créer la journée mondiale c'était en 1961 mais ñu ngi ko jëkk a célébré en 1962 benn écrivain bu mag ba pare metteur en scène euh, finlandais bu ñuy wax Kevin Kevima moom moo Euh, moom moo moom moo proposé woon loolu au neuvième congrès ñu koy célébrer ci àdduna bi yëpp pour wane le travail bi nga xam ne théâtre mu ngi koy mu ngi koy def ci àdduna bi pour ñu mën ko pour mu mën a graver ay échelons pour àdduna bi mën ko xam loolu c'est très important ñu ñu ñu fàttali ko euh, Sénégal itam di ko def ànd ci parce que Sénégal ci àdduna la bokk donc ñuy koy célébrer comme comme tout le monde di ko célébrer fii à Dakar di ko célébrer ci région yi euh, thèmes yi effectivement dafay am solo euh, ñun au-delà de thème bi nga xamante ne ni institut bi mu ngi koy joxe ñun au Sénégal dañu am une thème nationale mm-hmm. et année dañu wax def jàmm wax jàmm jafe jàmm vu que contexte yi ñu nekk actuellement théâtre dafa am lu am solo loo xam ne mu ngi koy def ci Sénégal mm-hmm. di dugg ci foyer yi di dugg ci tarixa yi di dugg ci kër yi di dugg ci marché yi di régler ay problème kon théâtre man pour man euh, dafa war a defar dafa war a éduquer dafa war a sensibiliser effectivement dafa war a informer et loolu ci lañ taxaw te ñun loolu on est conscient de cela loolu moo tax cette année au delà de ce thème là. et ñun dañu créer une thème nationale te loolu la ñu koy defee année bu nekk. seen seen thème bi c'est un peu une tropicalisation suma jumul de du du thème. au niveau mm-hmm. parce que daanaka sorante wuñu. effectivement. Mm-hmm. sorante parce que àdduna moo soxla jàmm. fi ñu toll nii si àdduna. Mm-hmm. li ñu soxla mooy stabilité. jàmm ci àdduna bi mais balaa ñuy wax l'international ñun en tant que ay national. dañuy wax ci suñu réew. xool même su fekkee ne thème bi peut-être dañ ko génne ci leneen. mais ñun au ci contexte bi nga xam ne ci lañu fekk ñun en tant que sénégalais dañuy jéem a liggéey ci loolu pour que message bi mën a jàll. parce que dañu nekk ci ay moment yu difficile actuellement mm-hmm. réew mi dafa yëngatu mm-hmm. loolu sax moo ñuy yóbbu ci même ni ñu daan célébrer journée bi mm-hmm. cette année am na ci lu bëri lu ñuy lu ñuy lu ñuy wàññi parce que dañu daan def caravane suñu xëyee le matin dañu dem Sorano effectivement def euh, la cérémonie officielle joge fa def caravane wan àdduna bi yëpp que ne acteur yi ni yëngutu ci wàllu théâtre muy comédien muy metteur en scène muy technicien muy ñëpp ànd nañu pour célébrer la célébrer la journée loolu dañ ko daan def bu ñu paree foofu ñu dem Pikine Arcos Pikine ñi dem seen Arcos Guédiawaye ñi dem Blaise Senghor ñi dem duta Seck def seen ay spectacle donc noonu lañ ko doon defee cette année itam noonu la ñuy defee mais euh, différentment parce que contexte bi ñëpp xam nañu ne la le 24 moom mooy élection yi te xamuñu li ciy xew ginnaaw bu ñu ñaanee yàlla yàlla def ci jàmm mm. parce que loolu la ñaan pour ñu mën a continuer suñu liggéey Sénégal nag comme ni ñu koy waxee Sénégal yàgg nañu dem élection yàgg nañu euh, dugg ci ay ay ay élection nit ñi xalaat ci lu bari ñu dem si ak jàmm ak maturité génn ci ak jàmm ñu ne ñu dellu ci suñu ci seen liggéey te loolu la ñuy ñaan journée bi 27 mm. kii même bu ñu amul les les résultats définitifs mhm. dañu am les résultat résultats mhm. ñi ñu gañee ñu xam ne gagné nañ leen ñi gagné xam ne ñoom ñoo gagné après la vie continue ñun noonu la ñuy ñaan ko mhm. alors euh, def jàmm wax jàmm. pour jàmm jooju nit ñi jot si il faut euh, ngeen def ay spectacle est-ce qu'aujourd'hui euh, am na ay pièces yoo xamante ni. ñu ngi travailler sur thème boobu. mën ko exposer les les Sénégalais parce que théâtre sur scène ñu wax ko ñu bañ ko wax dafa am un recul. bon recul. bon peut-être ni mu ni mu présent woon ni ñu ko daan gisee spectacle yi di gën a bëri daanaka aujourd'hui les euh, gens se déplacent même pour dem moom laa sànq ñu ngi mm-hmm. spectacle yaa ngi am mm-hmm. dafa fekk ne euh, xam nga dañu nekk ci jamono bu nga xam ne numérique bi mm-hmm. dafa dafa am lu bëri lu mu indi loolu sax ñu ngi ciy réfléchir pour xool xool comment faire Euh, même suñu mënul déplacer spectateurs yi ñu dem seetaan ñu créer ay ay captation indil leen ko ci seen biir ne parce que yi léegi dañu bëri ay préoccupations seen biir gàlle téléphones yi ñu ngi fii télé yaa ngi fii déplacé wu ñu ngi koy def mais voilà ren l'année dernière li ñu def ci spectacle Blaise Senghor mënuma la ko expliquer nit ñaa ngi ñëw di seetaan comme da payante dañuy fay seetaan spectacle Douta Seck la même chose d'accord soo demee ak euh, comment dirais-je euh, Guédiawaye même chose maintenant euh, nit ñi effectivement comme cinéma euh, déplacé wu dem parfois c'est c'est c'est c'est difficile c'est c'est difficile loolu mooy euh, si si journée bi euh, programme bi soo ma ko permettre suñ xëyee le matin à 10 heures parce que mise en place bi 10 heure la après le message après euh, le discours de de la direction de du directeur de du théâtre national Daniel Sorano euh, dafay dañuy def le discours de l'ITI institut bi dafa am discours ak le discours national bi nga xamante ni nii mooy jàmm ji ñu doon wax sànq donc kooku dina am kuy liir discours bi suñu paree dafa am ay distinction parce que le théâtre actuellement dafa am ñu ciy yëngutu am ay compagnie ay structure yu liggéey ci théâtre ba théâtre mën a toll fi mu toll ñooñu dañ leen di dafa am benn comité scientifique buy liggéey pour xool ñan la ñu war a euh, euh, jox ay ay ay ay laaya ay nu ñu koy ra laaya lañ koy xaw ma laaya <laughs> voilà c'est ça mm. Mm. pour ñu delloo leen njukkal ci seen mm-hmm. liggéey bu ràññeeku bi ñu def ci wàllu théâtre mm-hmm. euh, structure yi la même chose suñ paree si loolu am na benn compagnie bu ñuy wax Espoir de la banlieue théâtre d'intervention lay def ñooñu dañuy liggéey ci thème bi. def benn spectacle de quinze minutes ci jàmm jooju. d' accord ñoom ñu ngi ciy liggéey actuellement suñ paree am na benn compagnie bu ñuy wax Rescapar Rescapar c' est des humoristes d' accord parce que fi nit ñi tollu tamit dañuy soxla di reetaan actuellement pour xol yi féex. ñu reetaan loo leen tuuti nit ñi xel yu dellu si. su ko defee suñ paree si loolu. ñu euh, le le théâtre national Daniel Sorano moom mooy présenter la pièce Nder en flame comme dañu nekk ci mois de mars mois des femmes te ku xam Nder en flamme xam ne jigéenu ndeer yi mm-hmm. def nañu liggéey bu am solo boo xam ne mun naa ne sax ñun mooy suñu journée mondiale de la femme mm. ñi ngay voilà mm-hmm. effectivement donc c'était le 7 donc loolu dañu euh, Sorano euh, Daniel Daniel Sorano dafay def la pièce la une de temps lay durer théâtre total d'accord donc suñ paree après le discours di ministre ou le son représentant après ñu delluwaat ci ci fief yi ku nekk am nga sa fief y de des spectacles au niveau de Blaise Senghor le même jour le soir am na spectacle buy am Douta Seck am na spectacle bu ñuy def euh, Pikine am na spectacle Guédiawaye Rufisque euh, Kër Massar ainsi de suite Bargny yooyu dañ koy def créé waale ay ndogu nit ñu toog ñu invité waa koñ bi ñu toog waxtaan am na li euh, bu leen fàtte ne Dakar la région de Dakar moom moo gagné woon nag bi passé Théâtre Fesnac nag pièce boobu euh, groupe bi nga xam ne moo représenté woon Dakar ba remporté cette pièce ki euh, kii bi lauréat bi moom dafay def spectacle à Blaise am na tamit émission bu ñuy def ci théâtre TFM moo koy def foofu après après Sorano ci hall bi ñu waxtaanee théâtre les problème du théâtre comment faire pour euh, soqali théâtre comme ni nga ko waxee bu fekkee am na ay jafe-jafe mhm. loo gis ci àdduna am na ay jafe loolu yëpp ci programme bi lañ ko prévoir pour le 27 mars ànd ci ak sénégalais yi di invité sénégalais yëpp pour ñu ñëw tam ànd ak ñun ci bés bi. Mhm. xam naa ci jafe-jafe yooyu sax la ji ñëw parce que am na kenn ci sa ay naataango di Ibrahima Mbaye Soppe xàññeeku loolu ci wàllum théâtre moom euh, am na benn assertion mu waxoon ne théâtre sénégalais dafa nekk à l'agonie est-ce que yow partagé loolu. waaw soppee sama xarit la su ma sama frère la on a partage beaucoup de choses ku nekk am nga gis-gis ci ni théâtre dox fi théâtre toll ak ni théâtre doxe mun naa ñàkk partage partagé gis-gisam parce que peut-être moom am na fu mu koy xoolee am na fu ma ko gisee c'est différent ak man fu may gisee théâtre parce que man man actuellement li may li ma jàpp boo leen xoolee ñu bëri dañuy wax ne théâtre instant yi Euh, difficulté théâtre dafa non man je je dis non tu sais pourquoi mm-hmm. autant y avait y avait les Gueule Tapée euh, Sept Couches d'accord Festar Théâtre National Daniel Sorano d'accord mm-hmm. mais actuellement y a plus de cent deux cents compagnies au, au, à Dakar je dis à Dakar. à Dakar oui à Dakar. te ces compagnies ñu ngi def seen liggéey ni ñu ko war a defee les jeunes son très bien formés très bien je dis très bien formés. est-ce mhm. la bon l'accompagnement parce ndax compagnie bi bu ñu bëree. est-ce que théâtre tey mu ngi nourrir moom euh, ki koy jouer. waaw bon je dis oui. Ah, lu tax xale yi di daw di dugg ci série yi kon. bon série yi actuellement ñoo ëpp ñoo ëpp. ñoo ëpp ñoo ëpp budget quoi pour dire vrai parce que cinéma euh, dafa bëri doole actuellement. Mhm. loolu dañ koy nangu. fii le ministère de la culture mu ngi accompagner création yi fi am yëpp ku def sa projet indi ministère indi direction des arts ñu accompagner la ci à connaissance man tout récemment j'ai créé benn concept boo xam ne. le euh, le 7 mars bi passé à Doutasek mais ministère bi daf ma accompagne très sincèrement ak suma commune la mairie parce que comme euh, culture dafa nekk loo xam ne c'est décentra bon ci ci maire yi dañ ci war a jàpp et tout ça bon suñu maire itam jàpp nañ ci donc moo tax euh, il faut ñu ñu ñu ñu xam ne àdduna dafay dox. mais acteurs yi ba duñ la mere. le théâtre nourrit son homme nga wax de. mais bien sûr uteeg liñ daan dégg parfois. bien sûr bien euh, loo gis ci àdduna secteur yëpp am ay problème secteur hmm. yëpp am jafe-jafe. mais man secteur bu ma maîtriser la théâtre maîtriser naa ko parce que loo def plus de vingt cinq ans wala vingt ans am na loo si xam. Hmm. d' hmm. am naa ay jafe-jafe am yu ñoom ay jafe-jafe am ay problème parce que dafa am benn pëcc xaw bu xaw a am ci théâtre boo xam ne peut-être amaguñu temps xëy na di ci waxtaan ñu ngi ci waxtaan sax voilà mais dafa am la théâtre populaire bu dépendre ci ministère de la jeunesse direction du théâtre populaire am le théâtre comme académique bu nga xam ne dafa dépendre ci ministère de la culture mais ñëpp dañu taw daanu si ci kaw ministère de la culture mu nekk ay problème nekk ay jafe-jafe mais terewul ñu ngi yoon bi ñàkk xam la ñu ngi koy gérer ah donc ñàkk xam moo tax ñenn ñi am jafe-jafe bon je dis pas ñàkk xam mais euh, am nañu waaw bon mën nañ ko tuddee noonu mën nañ ko tuddee noonu mais théâtre bi dafa am théâtre scolaire am théâtre amateur mooy bi may wax sànq am théâtre professionnel mais ñëpp suñu dawee daanu ji ci benn ministère parce que xëy na dañu xamul mais suñu xamoon dinañ ku nekk fa nga war a aw di nga fa jaar bu ko defee mu oyof si ñëpp ku nekk li nga war a jot nga jot ko nga def say création effectivement création dafa metti sa demande beaucoup de la beaucoup d'argent parce que tëju def bind pièce répété ko trois mois dafa laaj ay moyens ba pare def beneen représentation taxaw dafay compliqué parce que dafay demander soo defee création ba pare soo defee présentation ba pare après nga def tournée nationale après nga génn dem international loolu la mais du rek ministère am na ay ONG yu fi nekk am na structures yu fi nekk yu jàppale théâtre instant yi may wax à l' instant que je vous parle am na une formation bu am solo bu ñuy def au niveau de Blaise Senghor bu tudd tisser à l' mais cette formation la mais état du Sénégal ñoo ministère ak euh, ni Bruxelles ñoom ñoo financé sa projet ñuy former ay metteurs en scène di former ay comédiens di former ay dramature te loolu la théâtre soxla mhm. théâtre ñetti nit ñoo ñoo ko composé mooy le comédien le dramaturge et les metteurs en scène après financement bi soo accompagnement bi soog a ñëw mais loolu soo xamul doo ko mun a doo mun a doo mun a exploiter say chance et loolu ñu bëri daf leen di daal. mais est-ce que comité bi yéen ngi def ay jéego pour xamle loolu lu nu mel. ndax xale yi tey dañuy jóg bëgg dugg ci théâtre mais est-ce que xam nañ li ci war yëpp. waaw lu ci bëri statut bi dina ko régler tout récemment peut-être loolu sax waxuñu ci mais statut de l'artiste bi euh, yaakaar naa ne. Euh, des na tuuti mu féete mu féete gannaaw mm-hmm. loolu dañ ciy gërëm le président de la république ak euh, le ministre de la culture parce que lu bëri peut-être à mon avis statut bi mën na ko parce que xam nga nit ñi dañ toll ci Sénégal bu nga xam ne lu ñu yaakaar rek jeunes yi dañuy daw dugg ci. Mm-hmm. pour am si dara c'est normal mais soo buggee def dara da ngay pare pour def ko nga dem xam li ngay def lan moo la ci mën a fekk ak lan mooy mun a tax fan nga war a jaar pour mën a réussir et loolu nag jeunes yi xale yi yëpp ñu ngi daw di ñëw mais ñun li ñu war. mooy comité de relance mooy structure muy ministre ak yëpp mooy former les jeunes jaar encadrer leen d'accord pour que li ñuy dugg ñu xam ne c'est un métier voilà ñu mun a xam nan la ñuy def pour mu nourir leen comme ni ngeen koy waxee. Mm-hmm. mais dire que le na nouri nourrit pas son homme loolu vraiment c'est c'est c'est c'est les temps passés passé loolu loolu passé nañ loolu. temps yu njëkkee la woon. kon sant yàlla ma fàttali beneen affaire balaa ma koy fàtte. Mm-hmm. journée bi damay revenir ci la journée mondiale. Mm-hmm. Euh, li ñu def yëpp suñ ko mënee def la journée là c'est parce que yàlla a ministère y la direction des arts derrière accompagner comité bi. comité bi toog waxtaan définir piste yi ak naka la ñuy célébrer suñu journée et ministère bi accompagné bi direction bi accompagné ñu et que voilà noonu noonu la noonu la mbir mi demee. xam naa une dernière question est-ce que tey euh, exportation wu théâtre sénégalais yomb na. waaw foofu am na am na tuuti tuuti tuuti tuuti jafe-jafe parce que xam nga exporter le théâtre dafa dafa xaw a jafe. pour plusieurs raisons euh, xam nga léegi soo créer une pièce de théâtre mu nga mu nekk dix personnes par exemple nga war ko yóbbu Europe billet yi déjà problème la hébergement bi d'accord ak yu bëri moo tax léegi dafa am yeneen forme yu ñuy créer ay création yoo xam ne ay mono la wala ay création de deux personnes wala trois personnes parce que ci lay gën a yomb nga mën ko génne jaay ko parce que xaalis bi dafay li may wax sànq rek dafay def mais terewul pour diir vrai ministère mu ngi def li mu war a def ñu bëri ñu ngi def seen ay création génne dem sous région bi génn dem bitim réew ministère accompagner leen jox leen ay billets ñu dem mhm. loolu y problème boo amee boo bindee sa projet yàlla dimbali la nga am financement nga def sa création bu baax mun nga ko yóbbu fu la neex. macha allah macha allah mu amoon solo lool njàkke waxtaan mhm. bi di ko jaajëfal bu baax moom Alioune Badara Diouf a rappelé qu'il est membre du comité national d'organisation de la journée mondiale du théâtre ñu bàyyi ko mu tàggatoo. Mhm. maa ngi leen di gërëmaat. yi mhm. di ñaanal yàlla kilifa gi yàlla defal ko jàmm. yéen itam yàlla defal leen jàmm. Euh, ñu ngi suivre lépp tamit li xew yëpp ñu ngi koy bokk ak yéen. di leen ci di leen ci masawu. Euh, parce que télé la bu nga xamante ne nii télé askan wi la loolu man lu ma gëm la mm-hmm. lu ma gëm la yàlla mi ma tiim xam na ne su ma télé man personnellement loolu c'est c'est moi mm-hmm. Walfadjri la moom laay seetaan donc maa leen di ñaanal yàlla mm-hmm. di ñaan yàlla rek yàlla defal leen jàmm par problème yi fii jot a am yëpp dootu fi am amiin yaa rabbi en tout cas mi ngi noonu yàlla na yëf yi dem ak rek jafe-jafe yi ak coono yi nga xamante ni <laughs> direwaale ko rek mu ànd ak ñoom <laughs> yàlla baax na Ndiakhate di la jaajëfal. Madou ba le 27 ñuy dem di seetaan ñu théâtre présentation bi xam nga nag damay réglé waale mais il faut may sànni waale ay kii rek. waaw le 27 tamit ñuy invité presse bi yëpp. Mhm. parce que tamit li ñuy def dafa laaj. Mhm. presse bi ñëw jàpp ci. Mhm. message yi génn nit ñu dégg jëfee jàmm. Sénégal continue ñu mën a théâtre nga mën a def seen émission. ñu mën a avancé émerger. incha allah émerger waaw. loolu dina am solo dina la jaajëfal. waaye yow tamit di la jaajëfal Salma. te di la soññaat rek nga réglé ci plateau bi. <laughs> fi ne nii kay damaa ping samay cër. ak ku sérieux moo fi toog muy Assane moom bëggul kuy perturbé. boo ko xamaloon ma xamal la ko Assane di jaajëfal bu baax sama invité Assane itam ma ko bàyyeeg Aïcha Diakhaté. mu lu doy waar Aïcha xam na Assane. <laughs> Assane foowul day na waar mi ngi noonu. waaw di jaajëfal bu baax sama invité xam naa mercredi prochain incha allah. Mhm. ñu dikkaat waxtaanee waat beneen fenn ci wàllum culture. Mhm. mi ngi noon di ko jaajëfal bu baax a baax moom euh, euh, suñu Miss Culture euh, Ndiaké Mbaye nekkoon sujet bu am solo mais di jaajëfal aussi sa invité donc tout de suite mën nañu jëli ji invité actu première partie.